أتيتها النرس لله بشرني والبشر عند رسول noonu rek la ñuy daal di defaat yokk euh, jéego yi yokk kàddu yi nga xamante ni ñi ñuy bëgg a jox nag ñoom ñoo ñi nga xamante ni ñoo bàyyi ko foofu ci Ndakaaru nga xamante ni bokkoon ak soxna Soda euh, mi nga xamante ni euh, ay wëllëre yu yaatu yoo xamante ni sëriñ bi ba léegi bu leen gisee seen jëmm yi da leen di xoolee bëti waajur nga xamante ni ñu tuddee soxna Aana ak soxna Yande ak soxna Dégel nga xam ne yàlla dogal na teewul kon soxna Yande la ñuy jox kàddu gi mu wax ci li nga xamante ni diggam ak soxna Soda waaye diggam ak Sëriñ Abdou Aziz ak digganteeg màggal gi nga xam ne mooy màggal Mbàkke Kajoor kon soxna Yande bismillah asalaamaaleykum asalaamaaleykum sëñ Abdou Aziz Mbacke yàlla na fi yàgg te wér Abdou Mas Aziz yàlla na fi yàgg Mbacke te yàlla na fi yàgg te wér Mbacke ngi sant yàlla di sant yonent bi sant sunu waajur ñaari waajur di sant soxna Yundu Baara sunu mag ja nga xam ne yoon wépp moo ko xàll Mbacke ba mu yegg si fii boole ñun nag ak Sooda Ñang waajuru sëñ Abdou Assis muy sunu jëwriñ ci kër sëñ ci kër soxna Indu jëwriñ ju matoon jëwriñ nag ndax doxandéem bu ñëw ca kër ga rek soodaa la fa saxal bari na sëy yu fa nekk ñu fay sëy soodaa ko doxal ba mu sotti ñun day Mbàkke Kajoor ñu fi ñëwee yàlla ak yonent beeg jëmmi Sooda Ñang la ni soxna Indu suñu mag yëpp mësuñu fee jublu waaye keroog ba mu nee sëñ Abdou Aziz Mbacke da sanc na Mbacke Kajoor kër ñu ne ko ko ne noppeetuñu di màggale ba ñuy tële mbaa ñu faatu di ko ànd ak moom daan ko màggal nag lépp dañ daan fekk mu tegal ñu ko bu ñëwee mu teg ca kaw sëñ Abdou Aziz teg ñu ca kaw Mbacke xam ñooy kan xam ne ñun ñoo ak maama ma bokk benn ween soxna Indu waaye sëñ Abdou Aziz moom danoo teggi lépp def ko sëriñ sunu njaboot gi yëpp lu soxna Indu amoon rek topp nañ ci ginnaaw ndax mate na ko suñu ab Aziz li ma koy ñaanal daal Mbàkke xamatuma lu ma koy wax ndax yaa baax mënut a weesu yaa baax sëñ Abdou Aziz mii yal na ne yàlla bàyyi yéen moom Mbàkke ba lu nu mënul ci moom sunu njaboot mën koy yeggal ci moom lu mu mën reen ak yéen ñii yàlla na ko yàlla ak yonente barke maamam lu mu def reen rek bu déwénee mu def lu ko gën a kawe ci darajee sëñ Baara. yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér yàlla na sut maamam ja aw fan di bëgg di kontaan rek di ñaanal soxna Indu ma sa àllaaxira yàlla na àjjana doon këram di ñaanal soxna Sooda ñaŋit yàlla na àjjana doon këram. ak sunu waajur a jiitu ji ñëpp waa di wax euh, man doomu Cheikh seen laa soxna Ibnu Mbàkke waajuram bu jigéen ak sama waajur bu góor ñoo bokk benn waajur bu ji góor kon soxna Ibnu su sama lépp la kon bu nu demee tey ba sëñ Aziz mi yàlla def ko mu meññee foofu dañuy sant yàlla rekk di ko ñaanal rek Mbàkke yàlla na yàlla taxaw yàlla suturaal ko di bëgg bu baax di wér kontaan nañ bu wér lu fi waay def ak lu fi waay ñaan rek yàlla na yàlla nangu si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sëñ am nañ cant commencement mais amul fin. di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd woon di ñaanal sëñ Abdou Aziz Fall mii mu yàgg fi loolu te ànd woon damay gàttal rek joxe kàddu cant te li may sant mooy maa ngi sant soxna Ibou Ba. ba nga xamante ne ba nga xamante ne jël na soore ñag mii suñu wóol suñu lépp dénk ko doomam ba sëñ Abdou Aziz Fallou mii feeñ ci loolu moom ab cant bu rëy la si ñun sant bu wër waaw suñu Abdou Aziz nag ñu fonk ko lool mu fonk ñu lool lool lool ñu koy sant ndax moom bëgg nañu ni ñuy yaay yaayam bëgg woon fonk ñu di ñuy ganasi di ñuy def lépp oyof tool mënoon naa kawe kawe lu te bu kawe woon nañ jéem a yéeg ba ca moom fekk ko fa man loolu rek laa amoon si li may wax. sant yàlla bi mu booleeg lu bokk ci Serigne Touba ndax dañ daan jóg di ko wuti waaw sunuy waajur ku ne xam na ko maama ma ki maamaatam ci sëñ Touba rek lañ seey ba ci waajuram wu jigéen dañ ko joxe woon daara jox ko. soxna indi doomi sëñ Baara moo ko yor ba sun borom wërsëgale ñu ñu am ko ci moom mii ñu sant yàlla nag ndax rusloowuñu ndax bi muy tuur tànk ba fii mu toog dafa jóg rek teg tànkam ci bëgg sëriñ Touba ak waa këram doonub taalibe nga xam ne boo nekkee moom di dib taalibe sax yow da ngay xeex sab taalibe ndax moom macha bëgg na ay mbokkam ci saayir bëgg mbokki ñi mu sëriñ Touba moom ay sëriñ la leen def ñii nga gis ñu nekk ci sun ginnaaw muy daayira bii dëkk ba mu doon jànge muy Përi Njaay ñoo ko defal daayira boobu te maanaam bu fa demee nii day wàcc ba maaseek ñoom wala maanaam mu doon fab taalibe sax won leen leen lu ma xam fii laa ko xame am na nu mu fa doon demee bu ko demee woon dañ koy wax bërki démboo njaay rek la woon fii waaw kon du leen jaral ñuy fajaru kenn ndékkiwut sa kër ban jullee suba la oto bi taa gaare ñu dugg ci boole seeni dërëm ak seeni déem ak seeni daqaar indi ko ñi nga xam ne dafa bokk ñoom ci saayiri ci wàllu néegum ndeyit ñoom itam ñi fi mën a teew ñëpp teew nan ñi munta teewit kenn ku ne indi nga sa yéene te lépp ak yëgam ak pëstéefam ak bëgg lu baaxam ak bëgg ay mbokkam moo ko waral ñi ngi sant yàlla bu baax di sant waa Touba di sant waa Thiès di sant xaritam yaayam yi soxna Aana ñoom ñi jóge Dakar ndax ñoomit bàyyiwuñ ko benn yoon. toogaay bi ak sëriñ bi day xaw a métti ak ñi bëgg a ziar kon bu ko defee ñu wéer jotaay bi jox soxna Lo Ndiaye mi mu yëkkati kàddu ci turu soppe yëpp. Euh, bu ko defee rek ndax moom ñëpp xam nañ ko ci yaay faalu suñu gis moom loolu ñëpp xam nañ ko soxna Sodolo bisimilah. nee na asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. nee na yéen bokki julit yi. seen bokkum taalibe. soxna Lo Ndiaye. soppe Serigne Baara borom kaddu gi. Baye Fallou Serigne Abdoul Aziz nee na moo leen di nuyu di leen ziyaare di leen baalu àq di leen baal àq nee na di ziyaare xaritam soppeem muy Serigne Abdoul Aziz Mbacké nee na soppeey Serigne Abdoul Aziz Mbacké li nu fi jot a dajale nee na moom la doon indi nee na nag di sàkku sëriñ bi ñaanal leen ci bisu maamam bii ñaanalaale Baye Fallam bii. bi ba teq-teq yi mu amee. ci wàllu yaramam. ba wéram mayu ko mu mën a ñëw lay kër gi mu ñaanal ko lépp suñu borom teggi ko. moom dafa ñaan yàlla. doon ab Baye Fallam ba këram muy dugg ci biir suuf. neena nag liñu fi jot indi ci àddiya jébbal sëriñ bi. mu ngi toll ci juróomi junni ak juróomi téeméer. ndax man ki ma soppal sëñ Baara bokkoo moom. ndax nee na moom ki mu sopp soppal sëriñ Baara bokkoo moom. moo ma gënal ki ma bokkal ndey baay. ko gënal ki mu bokkal ndey ak baay te sopp sëriñ Baara. nee na nag addiye jaa ngi nii. sëriñ bi nee na kon mi ngi sàkk wir ak gudd fan. ak nga ñaanal leen xéwal gu bari. mi mi ngi noonu. mu ñaanal ma nee na mu nga ñaanal ko tam. ji laaxu bisaab ma nee na nga ñaanal ko nag laaxu bisaab bii ñuy xëy di togg nga ñaan ba mu doon téeméeri mbana. ñu koy séddale. ci barke Cheikh Mamadou Lamine. kaddu yi moom daanaka kaddu tënk lay doon rek ndax li lifi li nit ñi wax rek mënu ma cee wax mënu maa wax lu loolu ndax xol bu sedd moom xol bu sedd la rek sëñ bi lu wax ci moom. lu nu wax ci moom ci lu baax jëfam ëpp na loolu ci ñun lu nu wax ci moom ci yéene it jëfam ëpp na loolu ci ñun ñun bokk noog moom nday liñ ko jàppe mooy ñun ab ab taalibe bi gën a suufee sax ci kër gi ndax sëriñ Touba moo tax ñu topp ko moo tax ñu sopp ko moo tax ñu bëgg ko sëriñ Touba it moo nu tànn ñun bokk gi nga xam ne sunu bokk saayir la ñu ànd moom mu feeñ ci suñ ci ñun kon loolu ginnaaw dañ koo bokk ak ñëpp duñ jël lépp aaki moo ko di wanab sañ-sañ kon ndax sëñ bi ni muy ni muy doxee ak ñun rek moom lay doxee ak ñëpp képp ku ko xam ak foo mën a nekk ak moom wala ngeen daje aw doxinam wenn doxin la man mii mu bokkal ak kii mu gis tey tam ñëw ci moom ñoo ñoo yemub àtte ci sëñ bi kon dañ koy sant di ko ñaanal fan wu gudd ak wér-gu-yaram ndax euh, bu fekkante ne tey jii doxinam wii doxewu ni suñ bokk yi nga xam ne ndax ku la yar xam la kon përi gii nga xam na tey fa la fa lañ yaroo ñëwin wi ñuy ñëwee duñ ñëwee te at yi yëpp seen taxawaay wane na lu ne mandargam waa përi buñ xasee wax ba joxe kàddu ci sëñ bi daanaka dolli ci leneen du ko jar ndax man xam naa waa përi ndax fukki at juróom ku ko def ci dëkk ku ko def ci dëkk la fay ump bëriwul rawat na nag boo dee dongab daara ndax man bari maanaam Cheikh Awa Balla ñoom ña ëpp tey mag ñëpp mooy seen wasila te Cheikh Awa Balla mooy ba ba bañ demee ba gisatuñ ko mag ña nga xam ñoo maase ak maam Thierno mii di xalifaam mooy seen lépp daanan ko fa bayal ay tooli dayra waaye yéene jii nga xam ne génération bii nga xam ne mooy bu mujj bii fa nekk ak soxna yi pas-pas beeg takk giñ giñ fay wane. diirub la ma nekk përi lépp maam Thierno di fa ñëwal boppam ñu ñu yan ay takki dugub ci suñu bopp yii di ko ko wàcceel li mbooloom përi mii di di wan sëñ bi yàlla xam na ne maam Thierno Cheikh Awa Balla amatu ko fa yàlla ma yàlla jéggal nag ci wax ji. te loolu it wax dëgg yàlla moo leen ko ji ndax bari na ñu fa nekkaloon ca daara jooje mu nekkoon ñu sant Mbàkke ba ci doomi sëñ Modou Bousso Dieng teewoon na fa waaye taxawaayam ak akuk takkoom ca daara ja ginnaaw ba mu fa jógee pas-pas ba mu fa doon doxe ak yéen a jëm doon doxe ak li nga xam ne kanu yoroon moom la bëggoon tànk yooyee ca la tegu ba mbooloo man koo toppe fu ne sëñ sëñ ku dib soppeem ak kuy mbokkam la aku akub taalibeem mënoo leen a xàmme buñ toogee ci wetam kon loolu dañ ciy sant rek di ci sant suñu borom bu baax ci doxin woowu ñun ñi nga xam na nag ay doomi ndeyam lañ ñii nijaay ak suñuy mag nii jigéen ñi takkoo wane seen seen seen pas-pas xeeb nan liñ fi def lool ñun ñii di góor ñi it wax dëgg yàlla daanan fi teew bu baax a baax waaye daanaka gàllankoor yeeg sori moo waral teewaay bi néew waaye nag li ñu li ñu tënkoon liñ ci jot a def mooy fukki junni lañ fi jébbale xeeb ko lool nag xeeb ko lool ñëpp ñëpp maasa nañ ci ndeyit te ndajale moom it ndajale mu diir bu gàtt la ndax dañuy toog rek jekki-jekki daal di jokkalante ñu daan bisimilah loolu pas-pas suñ kilifa gi fi teewoon ni ñu koy wax suñ Modou Jaxate mooy suñ kilifa néegu ndey tegoon nañ ko ci loxoom ba mu jox ko loxoom sëñ bi looleen mbooloo mi ak ñi nga xam ne ñooy néegub doomu ndey bi xeeb nañ ko lool ñëpp ngi maasa di la ñaanal gudd fan di la ñaanal ak wér di la ñaanal ak yokkute sa yéene ak sa pas-pas ci taalibe ak soppe yàlla na la ko yàlla motali nga àggale ko fa ko bëgg a àggale te ànd ko ñëpp ci barkab Serigne Touba. lépp loo yaakaar mbaa nga bëgg ko mbaa mu nekk sa xol mbaa mu nekk sam xel yàlla na la ko yàlla yombalal ci sa diggante ak taalibe yëpp ndax du xóor ci lu bon lu baax rek ngay dox soo meloon wenn melokaan bu ma toogee fii bit sa wet yii kàddu du ma ko yëkkati ndax man kéem képp koo mën a doon ci kaw suuf bu ma la toppee rek. sama melokaan a tax man defuma ak yow ay doomi ndey man sa be laa loolu laay feddali loolu laa gëm loolu laay dund ak yow. di leen siyaare di ñaanalaat ñëpp jàmm di ñaanal doomu ndeyam yi nga xam ni ñoom ñoo doon jébbale seen addiya ñu góor ñi ak ñu jigéen ñëpp sunu borom dafa leen taw tawféex ak ngërëmal Cheikh dul amiin di ko ñaanale noonu tam waa daayira Përi Njaay bi nga xam ne ñoom it ñëw nañu fi jébbale seen addiya waaye di ko ñaanale noonu itam dëkkandoom yu baax yi nga xam ni def nañu ñoom it ab délégation daal di teew ci jotaay bi siriñ bi ngi leen sant bu baax di leen ñaanal lépp loo xam ni bëgg ngeen ko mbaa am ko ci naal wala mebet ci jëmmam ji Cheikh Mamadou Amine wuutu ko ci seen jëmm yi defal ko ci aaju ju faju zaahiran wa baati nan ak itam daayira ñoom soxna Mbène Ngom bi nga xam ni def nañu démb délégation bu mag ñoom it ñëw fi jébbale fi addiye ju am solo sëriñ bi tam mi ngi leen di dugal ci biir cant gi boole ko ak ñaan. di ñaanit Cheikh Mamadou Amine mu defal leen tawféex wax na ni tam ñëw gi ngeen ñëw rek mu gis leen da koo ëppal solo lépp ndax moom ci yëg lay dox ci ak yëg lay dox lépp loo ko mën a defal moom te yëgoo ko loola daanaka amu ci soxla waaye képp ku ko mën a yëgit lépp loo ñàkkit mën na la koo muñal moom loolu mooy aw doxinam waaye itam di santaat bu wér ci at mu jot ñëw gi ngeen di ñëw fii ci waxtu yii ñu toll tembe fab seeni i addiya di ko jébbal boole kook nag daj ay coono yu metti ci ñëw fi loolu lépp sëriñ bi na yëg na ko te lu ko àgg fu sori la te mi ngi leen di bàyyi xel bu baax itam waaye di ñaanit ñi nga xam ni su mboom dogaloon na ñu ñëwoon fi daaw ak tawat gàllankoor leen ba ñëwuñu walla seeni wajur amuk tawat mu gàllankoor leen ba ñëwuñu suñ borom wuutu ko ci seen jëmm ya saafaraal leen bu wér ba bu déwénee ñu man fee teew wax na itam liggéey bii muy liggéeyal Cheikh amin Amine lu mu yàgg am ak dogu la loo xam ne na tam daf daan wéet lu yàgg di ñaan suñ borom mu barkeel ko te defal ko ci kàttan ak ñoo xam ni dana bokk ak ñoom liggéey bi liggéey ko loola nag rafet nañ ci njortu bu baax ci ni lam doon ñaan ñaanam googa sunu borom mi ngi koy nangu ndax mbooloo mi fi daje yëpp di màggal ca jamono booba daaw ñu fi daje kon lii ak yokkute la bu wér sëriñ bi nag nee na loola li mu ciy gis mooy nangu goo xam ni borom liggéey bi di Cheikh Mamadou Amine mi ngi ñuy bokk di ñu nangul sunub liggéey lool loolee la ci gis. ndax xam ngeen ni màggal gii ñun ñëpp ñu daje bokk nañ ci gërëm ci ay góor yàlla yu bari ku mel ni Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Daaru Asan ak Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ak ñu bari bi Cheikh Mamadul Amin gënee jamono ci la leen indaa leen seen ngërëmal borom sëriñ bi woo leen gërëm leen muy bis bii ñu fi daje ñun ñëpp bokkaat di sàkku ngërëm kon loolu rek day dañuy rafetaan njortu ni bis bii bis bu ñuy nangoo ab liggéey la kon képp ku fi ñëw rek sëriñ bee ngi lay sant di la gërëm ci boo ko gisee ak boo ko gisut suñ jaaree ci saw tur ak buñ ci jaarul sëriñ bee ngi maase sant ñëpp gërëm leen di ñaan suñ borom mu wéral leen kàttanal leen defal leen saaritu daare ni képp koo xam ne ñëw nga fi indi fi aajo sëriñ bee ngi ñaan boo delloo nga daje càkk aajo ju faju képp ku fi indi tawat sëriñ baa ngi ñaan boo delloo nga dajee ku wér képp ku fi indi ak ñàkk sëriñ baa ngi ñaan boo delloo nga dajee ku am ak tawféex di ñu ñaanal ak wér ak saada ak baraka sëriñ bi daal sant na ba fu sant yam soo amee lu manqué ne leen wóor ni ci jëmm jii di ko jottale la waaye sëriñ bi matal na lépp su ngeen ci gisee lépp lu mat sëriñ bi la ci mbaaxam ak kattanam waaye mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp. waaw sëriñ bi tam nee na ñu ngi sant bu baax Baye Mor Camara mi nga xam ne tuut tànk la waaye at mu jot mu jëf loo xam ni day kawe njortam ànd kook ay rakkam nag ak ay magam gàtt bu ngeen gis rek ñu koy màggale fii moom day jaayante ci loola taxaw ak moom ba pare nag boo gisee sax doo doo xam ni moo ko def waaw boo boo gisoon nii bu ñu la woon mi ngi nii toog da da ngay da ngay ci yàlla loolu nag day wane ni rek euh, pas-pas ak ak yitte ak tawféex euh, mun mun munta romb lool am na bis boo xam ni maag sëriñ bi dañoo ànd. jëf ju baaxam rek bi ñu àndee ñu yor daamaar gi bi ñëwee ba Thiès moo am jafe-jafe waaye oto moom boo xam ne moom la moom moom la fàggu moom la fab fab caabi ji jox ko sëriñ bi jël booba yóbbu defar ñu jël oto booba dawal ko yóbbu ko nooto bi mu xëyee mu indi ko nooto doo ko jëlub oto te oto bam ñu jox moom yéeme na yéeme goo xam ni ci jamono bii ku ma moomoon da koy kof-kofal moom maam yombut ci tu tànk mu moom oto bu mel noonu fab ko di ko jox keneen te lu yéeme la ndax sëriñ bi manuel la yor boobu automatique la pour nga jox ko nit da ngay jàpp ne dana ko paanal wala mu def ci leneen kon loolu jëf ju baax la te lu ñu fi fekk la comme ni ma ko doon waxee démb ci jénn jëwrin ñi njëkk ak ñi mujj ak ñi ñëw ak ñi bëgg ñëw ak ñi ñëwagul sax man xàmme naa leen kon loola ak cant la. waaye nag dañuy bokk sant ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex di sant itam ñoo xam ne sëriñ bi dañ leen ni beral mention spéciale parce que at mu jot euh, mooy 28 TV mi ñoom dañuy ñëw chaque année indi seen leeralukaay bi di di di di leeral jotaay bi wax dëgg yàlla di ay jàmbaar ñoom it bu ma leen gisee damay amoon mbégte kon na nga leen dollee ñaanal. ak wér ak seen eh, télé bi nga xam ni télé privé la suñu borom yaatal ko ba mu daj kapp ci réew mi nii mu doonee vingt-huit di arafi Touba yi suñu borom yaatal ko ba mu yaatu fépp bi barakati ma Mamadou Amin ah waaw mook mook média acte média acte tamit teew nañ fi loolu tamit ak dolliku la ndax 2016 eh, maa ngi fàttali bu baax bi ñuy màggal fële téléphone bi ñu doon bi doon filmé matul sax 1 giga téléphone bi matul 1 giga ab Samsung la woon sëñ bee ko moomoon nga xam ne ci lañ jëlee woon ay foto yoo xam ne dañ ko mujjoon denc ci ay logiciel mooy photo bi ngeen di gis ci buntu kër gi muy lu yàgg kon lii yëpp bu dolli ko rek day wane ni Cheikh Mamadou Amine duggaat na ci biir jotaay bi te mi ngi ñuy kàttanal bu baax a baax kon sëñ Moustapha lii lépp ci seenu rafetal la mbay ndax yéen tam bu fekkonte ni ñun ñii. amu leen ab taxawaay ci ñun ci sunu digganteeg sëriñ bi lii lépp du am waaye di fàttaliku jëmm joo xam ne du ko mën a fàtte mukk ndax bu doon ak garab la walla muy aw ñam wala muy am ndox mu ñu mën a naan soxna Sooda moo ko jëmbat moo ko roose moo ko togg ba mu toll fii jëmm la joo xam ni amul benn jotaay bu ñuy toog te duñ ko yëg ci suñuy xol ndax bu fekkonte ni dafa togg ñam wi lekk ko wàccuñu ñun dañuy yalwaani waaye ñu nag moom la woon ca xottu saako ya ñu koy baas ba mu demee nii ñu doon ñaan suñu borom mu fekk lépp nag waaye suñu borom mi nga xam ni dara tëwu ko def mu jiitu waaye saa su ne rek mi ngi ci sunu jëmm mi ngi ci sunu xol mi ngi ci sunu kanam ñu ngi koy fàttaliku ñu ngi koy yëg ndax sunu waajur yu tedd yii nga xam ni ñoom ñoom la ko àndaloon. dafay wax ni ñoom ñi ñoo ñàkk mais ñun am nañ ay waajur. ndax saa suñu gëstoo danañ leen gis kon ñoom it ñu leen di ñaanal bu baax suñu borom mu wéral leen kàttanal leen sëriñ bi sant na leen bu baax gërëm leen di ñaan suñu borom mu wéral leen taxawaay ba soxna Soda taxawoon bu ko raw sax yéen a ngi koy jéem ba tax wéetuñu kon nag sëriñ bi mi ngi ñaan dañu defal tawféex bu defee rek mbooloo mi yëpp ñu daal di tàllal suñuy loxo dékk ñaan sëriñ bi ñaanal ñu bu déwénee ñu mën a waat jotaay bi bi barakati xaadim rasulullaahi salaatu wasalaam waaw nee na moom ñëpp ay murit lañ waaye nag sëriñ bi dafa dafa tànn borom jom yi ñu ñu sëriñ bi nee na nag ñun ñii ay boromi jom rek lañ loolu nag alhamdulilah kàddu gu am solo la yàlla na sëriñ bi tëbbu jom ba ñu mën a ànd sëriñ bi ci wét ak ak wétaliku barke sëñ Tuubaa. kon daal maa ngi ñaan yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak moom si bark barke Cheikh Mouhamadou Lamine. yàlla boo leen ko réccu te gëm naa ne itam doo leen ko réccu barke Cheikhul Khadim man bu ma duggee Mbacke Kajoor bu ma jaarut fii day mën a ja dugg ma Mbacke Kajoor barke Cheikhul Khadim te man moom def nañ ay at ma xam si moom lu bëree bëree bëree bëri sell na yiw na tolum ñaan suñu borom def ko barke Cheikhul Khadim du waxantu lu yoonam nekku noonu yoonam nekku si bu la romboon fii tey si otoom dina taxaw nga dugg mu yóbbu la fa fa nga jëm. te loolu mën naa koo seere wa ma saxina ila bi ma xalim na du ma seere lu ma xamul mukk barke Seexul Xadim mënoo dugg sama kër sëriñ ba génn te laajte ko wala sëñ mu jaxati dugg fa te laajte ko nekk na ana sëñ assis moom xam na ko muy sëñ Omar jaxati moom sëñ am si lu jaxati man daray caaxaan doxuma si te kuy dox si ay caaxaan dama la fay romb jàll barke maam Seera Fall kii dama koo xam bu baax a baax a baax li may mën a waate Seexul Xadim mooy lu mu ñaan suñu borom dina ko def ndax seel kon dee leen ko dékk seen i loxo jàpp ko tayaat rek tax bu leen découragé wu mukk ndax sëriñ yombut sëriñtu nag yomb na waaye sëriñ moo yombut te sëriñ a ngi nii damaa bëgg ngeen taxaw si jàppale ko mu jàppale leen rawat na ko takk seex mu takk seex mu amadou Lamine barke sëriñ Touba bitu hal narso بشرني والبشر علم رسول الله ماموله وواف بدعاء رسول الله بشرني والبشر بالله